sunu kër FM mbokki auditeurs yi ñuy déglu. mën na ah, dégloo dégloo xarit seen soppe Mouhamed Souleymane Mboup mooy àndaat ak yéen ci émission bi ñuy ooyee Panorama. panorama li liko li ko jox euh, tax ci à travers la situation politique dans le monde ya koy euh, li xew doyna war ci Sénégal li xew doyna war ci États-Unis li xew doyna war ci àddina bi donc il faut nit ñi waxtan ci bo xolé ci démocratie bu njëkk ba ñi nga xamee ne ñoom ñoo jël wàllu démocratie ak lépp lalal ko ba ñun ngi cee dox tey dañ bëggoon que le peuple ait son mot à dire dans les affaires de la cité bañ la ko ba gis nga gouvernement dafa am lu ci tegu lu am solo Senegal tey ñëpp a ngi xëccoo pour Ninyangi woy neex na nit ñaa ngi bugg a falu nit ñaa maire ku nekk jaral na la sax tey nga jaay sa ngor pour mun am li ñuy oye la magistrature de ta cité ou de ta nation man suma waxee rek ñu ne ma soo waxee da ngay delluwaat ci alxuraan te alxuraan ak politique dañ koy dissocier je dis gis nga nit ki ci li nga gëm rek nga mun a waxtaan ak ci illa boobu nga mun a waxtaan ak nit ñi Seydina Umar radiallahu taala anhu dafa amoon jamono mu ñëw triste trop alamu yàlla bi yëpp wër ko ñëpp ne ko amirul muminoon tey lan la mu ne leen maa ngi jéggali ci suma boroom di wàkkirlu di waat ci suma boroom bi nga xam ne moo yore sama ruu pour wax leen ne leen gis nga tey baax la muy mbaam sax su fekkee ne faqastalu na ci mbedd medina yi man yàlla dina ko layoo ak man ñu wat ci beneen citation boo xam ne bu ñu gën a jege la Seydi Aboubacar ñu bëri di ko ooyee fuute muy doomu sëñ Abdou Aziz dafa wax lu am solo mu ne bàyyam dafa toog benn jour jaaxle trop benn suba ñuy wasifa rek mu jóg génn ñu pare mu ne ko papa lan la mu na ko yow abu Aboubacar xanaa xamuloo ne tiwaawoon gii lu fi nit def rek ci sama xalifa gii rek yàlla dina ma ko laaj waaye ñun ñu ñëw gis ne à travers le monde fu mu munti nekk rek nit ñaa dem par tous les moyens pour y réew pour diriger les affaires de la cité su waxee ñu ne comparaison de comparaison parce que bu doon comparaison exemple bi may jël duma ko jël waaye li ma ci xool mooy que ne xool leen ci Amérique bii ñu gis nga bi ñuy ooyee di faadër mooy ñi nga xam ne ñoo jël di fondement politique ak démocratique bu États-Unis teg ko ci yoon tey su leen fi fekkoon dinañ am lu leen naqari trop ñaari partie ñooy partie yi nga xam ne ñooy diriger États-Unis benn parti bi nekk parti boo xam ne ay la yewen lepp lu nga xamé né dans les affaires courantes de la cité dinañ ko def ñom aussi tamit ba fallu paré ba légui ñom yaakaar nañ né ñoo gëna a askan bi ak nation bi nga am les démocrates ñom lay commencé fi nekk lu ci walu doomi ak pour defar li ñuy ay infrastructure ñoom taxaw nañ ci pour def aux États-Unis wàllu immigration taxaw nañ pour def ko pour yërmande bu ci benn gox dem ci beneen gox pour taatagal ñi nga xam ne ñooy seen te seen nekkin doxut mu am si ñeneen ci benn côté bi muy républicain muy parti boo xam kenn sax parti là parce que dañuy fogné légui léegi culte la yàlla nattu Amérique parce que lolu natou la wala mu am lum mu leen teg muy mbugal indil leen président bu melni Donald Trump lima waxone ci Adama Barrow bu Banjul rek am ñu mer Banjul mané ne leen jàngul mënut diriger nation Donald Trump tamit jangul xalisam la yaakar mënut te diriger nation waaye Donald Trump sax moko tamit parce que Donald Trump sax su fekkee ne société la wala dara mos na nekk président directeur général bi war na comprendre exécution d'une institution comment ça marche man université la jànge bu fekkee ne sax awma fa diplôme yépp yu nga xam ne ñu ngi doon le fait que nga fréquenté université bi les institutions may na nga am une certaine culture parce que duñu nekk université ñëpp daje fa ñoy génnaale liñ soxla am na ñoo xamné sen seen diplôme tey jëriñu leen dara am na ñoo xamné tay tey tamit jëlewuñ fa dara waye liñ tek ci àddina mo upp ñeneen ñi liñ tek ci àddina yëfi yàlla nit ku nek da nga wara nangu destin waye xam-xam biñ fay jang dina la permettre dans une certaine mesure parce que bagage intellectuel dafa top nit yang koy accumuler dee nga nek CI ba ba ngay jóg gis nga une analyse philosophique dafa am ci nit day nek ci deret bu dara ko rek nga mun jël gauche wala nga jën jël droite wala fo xam nga mun fa taxaw pour jël porter liñ lay wax pour nga comprendre ko moo mané ma bala ñoo falati nit dafa war a nekk nit koo xamee ne jàng na am na xam-xam mus naa diriger dara mun nañ koo topp ci dara fekkee na ay problème mu am mu résoudre ko parce que li ëpp ci njiit du escalate a problème is de-escalating a problème tey su nattu amee problème sosu doomu aadama yi li ñu war a njëkk a def mooy dañu war a orienté wu ci koo xam ne mun na leen dimbali nim leen di dimbalee mooy mu xool situation bi assess ko xool lan la ci mun a def pour jël si li nga xamee ne mooy une mesure idoine mais nag su problème amee yaakaaratuñ kenn ci àddina lu dul ki nga xam ne mooy diriger les affaires de la cité te mënu ci jël dara xool ko tey ci démocratie barki démb lan lañ fi am nit ku nekk ci house of representative bi ñëw nit ku nekk ci house of representative bi ñëw amul dara loo xamee ne mun na ko def lu defar vidéo yam boo xam ne mu ngi ni mu war a membre parlement yam ba aussi tamit pour l'exécution du président de la république nga affaire yooyu ni mel ak porter bobu ñu am demb lañ ko doga ci house bi pour mun a tekki ay ti ci ay yenn affaire ñu am suñ ko waré prosecute moy rek tay suñ doon wax ci français dañu né lever immunité parlementaire am et des responsabilités une fi lay nebe suma mbokk yi may déglu buñ demee ba nga xamné dëkk bi ci dans les démocraties les plus avancées du monde

dagg di dagg ba fuñ mëna dajé dans un comprimé moo président bi barki demb il a fait le tour des États-Unis demb la ñëwoon ci dëkk bi ma nekk Detroit pour présenter son plan d'action plan d'action bi lan la defar ay industrie yu bëri surtout li nga xamé né ci conservation environnement bi lay doon créer moins emploi fay len lu bëri je crois que amul nation bu war a mun bañ mais lépp ci démocratie la taxawee moo tax ma ne démocratie au-delà des Pyrénées autocratie au-deçà li tax ñu wax ko mooy la Pascal waxoon rek vérité au-delà des Pyrénées erreur au-deçà la nekk yoon bañ mun ci tëral nit ba sonnal ko ca Mauritanie mun naa bokk bañ a bokk pro mun naa bañ a nekk problème ci mim réewu Sénégal sumay mbokk sumay mbokk yi may déglu damay ñëw rek def analyse sur la situation en Afrique En Afrique xawma yàlla moo leen nattu xawma les gens sont aveugles wala dama xamul nag ne c'est la boulimie du pouvoir xoolal ce que les militaires font en Afrique ñoo ngi leen di blâmer les militaires doivent appartenir aux casernes man d'accord naa ci militaire warta yore benn réew amul benn dëkk boo mus a gis militaire bu ko yore bam dox foo ko munti dem rek ci xeexoo même sax su fekkee ne l'idée est noble comme le cas de Thomas Sankara waaye loo ci mus a gis coup d'état kan moo ko def xaritam beneen militaire lu ko waral c'est parce que suñ njiit yiñ teg je vais commencer par la Mauritanie Gadem dem ko ci ñoom Ould Dada nga président yu bëri ba ci mujj président bi Aziz ku mujjee gi un coup d'état ak ay renversement militaire le pays n'a jamais été stable et ne sera jamais stable dans la vie tant que li ñuy te qui militaire yoy di dugg ci pouvoir yi mu ngi am nga le cas du Mali c'est la même chose depuis Moussa Traoré la confédération du Mali avec Modibo lam ci sur le plan intellectuel avec Senghor ni mu waroon ak ni mu waroon ak tu transites en Guinée Guinée depuis le départ de Cheikh Touré c'est le chaos coup d'état militaire sur coup d'état militaire ñu ñëw jël le au régime tuant un démini pour mel ni président bi fa nekkoon Alpha Condé les gens se révoltent jëlaat régime bi et on passe en Guinée-Bissau qui a été toujours une catastrophe ba ci régime bi ñuy doog am xeex nañ avec le PAIGC ñëpp gis nañ num mu journalisme dama koy wax toujours il y a un droit en journalisme c'est l'évocation tu pars des faits intérieurs pour analyser les faits présents et les faits futurs. Tu transites en Gambie. Deuxième gouvernement de un renversement militaire en 1994, dont j'ai été non seulement une victime, mais j'ai été aussi dans le régime comme conseiller du président pendant cinq ans de Gambie. am na loo xam ne luñ la munti jox ci responsabilité wala nga yore ko doo taxaw di ko wax ci mbooloo tey rus naa taxaw di leen wax lépp lu nga xamee ne moo amoon suma diggante ak Yaya Jammeh te waxtaan naa ko ak moom <clears throat> li ma leen ci mun a wax mooy xolam tàng na des fois mu jóg pour attaquer le Sénégal ma nëpp nëppal ko ne ko diggante Sénégal ak bi Ben réew la gis nga diggante ak Sénégal ak Gambie képp ku ko yàq mu ne naa mën ko safara ngay dem parce que c'est le même peuple mbub bu Gambie MBOOP lañ koy binde bu Sénégal O MBOUP job bu Sénégal DIOP bu Gambie JOBE Babu Sénégal B BA Babu Gambie H. man leen waaw ñaari dëkk yooyu ndax bopp mun na leen a xàjjee wala nit ku taxaw mun na leen a xàjjee li ma gën a naqari ci àddina te nee naa leen yàlla bu ma dee te ma ko mooy bu doomi gambien amee passeport boo xam ne boo ko mu nekk passeport sénégambien nga xam ne commerçant Banjul bi mun na ñëw jënd si marchandise Banjul jaayee ko Sénégal doomu Sénégal bi mun na ñëw université bu Gambie jànge fa doomu Gambien bi vice versa suñ paree ils n'ont pas le choix ils sont éligibles pour liggéey ci ñaari dëkk yi foo bëgg suuf amul dara luñ lay tegal Sénégal ak Gambie demoon na ba ñuy ooyee taxe expatrié en 1995 la commencé di fay taxe expatrié en Gambie et je paye 1 million 600 mille francs CFA à combien serait cette taxe aujourd'hui dans la sous-région Je nekk bu toujours damay attaquer les journalistes sénégalais depuis 1994 je suis un journaliste qui est spécialisé en matière gambienne avec ni Sénégal et Gambie je n'en ai pas vu je ci nag ci a wax lu takku te ñoo ñëpp sut moo leen indi Mouy Pape Diomaye, qui est un très bon journaliste, Moussa Abba. Il y a aussi, euh, à partir il y a aussi Abdoulaye Sissé. bu nga xam ne sax tey moom comme un spécialiste ndaxte de ñëw il a embrassé ce qu'on appelle la culture gambienne des lacs mandinko des lacs olof des lacs anglais des lacs français un très bon anglais un très bon journaliste de renommée mu TFM suma ko waxee mu ne ma yaay suma sëriñ daara yaa ma dalal ma ne ko Ablaay mu ne ma ma ne ko ba ngay ñëw danga indaalee indaale bagage intellectuel mais sa bagage intellectuel laa jël rax ci loo xam ne bagage administratif la bu ma jàng jàngal la ko jël sama chaise teggeeku di la fa teg jël suma caabi jox la ñu nekkante ma jàngal la ce qui est administration ba pare yow mi fréquenté l'école du journalisme ma jàng ci yow lu bëri bon àddina noonu la xam-xam dañ koy weccoo ba tey fi nga nekk na teg ko man tey su may cité comme mentoram damay sant yàlla parce que man am naa lu ma achieve at least sama liggéey journalisme Gambie télévision bi maa daan formé ñëpp le directeur général de la rajo bi fa nekkoon man naa ko formé woon Seynabou Diop Racky la les maire journalistes ñëpp mën naa leen formé bañ génn lii la démocratie soxla lii la échange entre soxla sumay mbokk sumay mbokk yi may déglu ñu ngi jëm ci ay élections yu am importance damay commencer Gambie chuter vers le Sénégal barki démb barkaati démb dégg ngeen ma fi ma dalal ay gan gan gi ma njëkk a dalal muy commandant Thiongane congaan domi Sénégal sax lañ koy doomu Sénégal bi parce que ko xamné sa yaay ci mbàkke mbàkke yi la bokk sa papa sénégalais la mais liggéey moko ko Gambie bam dem ba am fa nationalité yéen ba ngeen judd koku xawma sax numa lay ooye nañ ko ne daal congaan le bi dañoo wax fi def fi ay analyse pertinente parce que mom fi nek ni nii dëkk bi mu nekk mu ngi Londres mungi dans l'administration dans les conventions internationales pratiquement moi bu jot Bruxelles ba commandant de gendarmerie le Gambie yu ci militaire, compris wax na fi lu wax na fi tam am dem na ba expliquer tax nit ñi di caserne yi di def li def pour gannaaw gi ma recevoir Insa Fall ñu bëri Sénégal xamuñu ko woon ñu bëri xamuñu woon lan lay liggéey ñu bëri xamuñu woon moom ci boppam ñemewul woon a taxaw ci élection yi en Gambie ne leen man dama am samay investissement yu ma def Sénégal ci real ci real estate muy ci wàllu dëkk habitat sama alal bu ma lew laa jël def ko fa ndaxte bañ na ñu ne léppam mu ko defee Sénégal mais bu doon Londres ñeme na taxaw pour wax ko ñun en tant que journaliste ñoo ko ci génne ak suñ conseil ak suñ xel bu màcc ci wàllu ñaareeli jabaram Sénégal la am nañ ay cheikh ñemewul woon a taxaw dans une campagne pour wax ko mais ñun on est sorti pour waxal ko ko c' est parce que loolu mooy le rôle du journaliste mooy en fait da nga war a fekk fii nekk problème bi nga tot ko ngeen waxtaan ci ci yar ak ci teggin ñi may déglu tey maa ngi ciy ndokkeel suma ay xarit Abdoulaye Wilane léegi la ma yónnee message nekk ku xelam màcc ci wàllu politique ñi nekkoon Université Saint-Louis dinañ ma déglu man sama source de référence la et je connais des gosses yu nekk PS tey wala yu nekk ci Khalifa Sall ñoom taay ils ont beaucoup appris de lui lenn laa ko respecté mooy kóllëre le colère dafa am importance il a été socialiste devant la très grande résistance des personnes comme moi parce que bu moussa na taf photo Abdou Diouf man may wax suma ay rak ñom Moussa li ñu xolli ko PS parce que les gens étaient complètement hostiles au PS mu dugg biir université créé fa ben cellule PS bu am doole ñoo ngi fàttaliku Mariama Badiane sen ñom Boy Jupiter bi gaañu

rares sont ñi nga xamné ya jangano ak ñom université ñu am responsabilité nga yëkkati sa téléphone oo leen ñu uyu la fu ma ko nekkar mu ne ma talibé Cheikh Ibrahim bu bex bi ma ne ko talibé sëñ Baara Mbàkke Falilu bu bax bi mu ne ma ya bax ma ko ya bax ñu wéccionté am na ay gos barki démb dafa def une très grande presse taxaw défier le président de la république ne Kolda mom da fay taxaw Mame Boye

musta yëkkati benn bangu essence jox ma ne ma demal wala deneen durant tout son règne benn yoon laa ko musa oo bi mu nekkee ministre mooy un jour il a fait une déclaration ma oo ko rectifié ko mu ne ma sama rek dégg naa la jërëjëf beneen bi mooy bi Serigne Saliou Mbacké gaañoo ma koy jaale ba tey saa yu muy ñëw Dakar su ma ko ooyee yóbbu na ma ba yóbbu ma lagaan ci Serigne Moustapha Saliou ñu toog béy jour boobu ci tool bi mu gërëm ma sant ma ma dellu siwaat dakaar ñëw donc ñooñu ay kóllëre lañ ma dellu siwaat ci li ma doon wax Gambie buñ demee ba dugg ci élection yi ñun jël nañ ko man ni Insa Fall portrait ko génne ko toppatool ko ay show yu bari man li may wax tey dama koy wax parce que je veux que l'histoire soit mon témoin man naa ko au Sénégalais ci diverses émissions Kouthia sax def na émission ci moom tey je prends les Sénégalais en témoin pour wax leen benn affaire you know naam ma ne leen Insa amul benn dërëm bu jóge ci poosam bi mu ñàkk wala bu mu ñàkkul bu mu ñëw fay ma ko man en tant que journaliste duma lekk guerre soo gisee ma ñëw taxaw ci émission bi ci plateau bi pour wax ko dafa am ay rumeur yu ma ci jot a dégg wallahi azim mosuma fay benn dërëm yaa jàmme j'étais leur conseiller en communication te wilaan mii ma leen doon wax ba ca jamono ba ma Samuel sar jëlee recruté ma pour ma dimbali len ñom sen parti bi pour sen campagne ñom ñoma daan fay sen xaliss ba jël licence radio bi teg sama loxo je dis et je prends l'opinion en témoin licence Sud FM bu Banjul man mako momon Sud FM moomu ko woon dama len ci jaayoon ay action ñu ànd en partenariat bala fa jotta am yépp c'est moi qui ai ouvert la première radio internationale histoire dafa bax nit ñi di ci renseigner wala di waxante ak nit ñi ci suma xam-xam ci suma intelligence C'est la redresser lu bëri ci campagne insafal bobu mais amul ben deureum bo xam ne jox na ma ko su amé mom na indi wat ñew ci plateau bi mu wax ko je prends toute l'opinion en témoin ñu xam ne musuma lekk dërëmam wala ñaqam am naa ci sen sen parce que j'ai un cabinet de consultation au Sénégal qui s'appelle Senam buy liggéey lu bëri parmi les politiciens di leen dimbali ci lu bëri suma ma soxla

ñu xam ustam lim liggéey ci réew parce que nit su liggéey ustam da nga ko koy reconnaître waaye bañ jëlee jox ko post poste ministériel conseil des ministre lay toog di waxal suma xarit bu nekkoon ministre moom ma ko wax day wax ñu koy reetaan di ko okkante un gars qui était dans son cabinet moom may wax ne ma ministre bi loo ko jox mu signé C'est quoi am responsabilité yilif dara ma jël ko def ko premier ministre man duma wax dara ministre directeur de cabinet wala chef de cabinet doful bako indil dossier né ko signal parce que est dans les rouages de l'administration, ji Django, bu sori Moustapha bu sori des administratifs ils ont été l'un des meilleurs lo munti waxal ci xeetu politicien boobu Moustapha Niass kañ xanaa tey la summi vestam àddina topp ko et la boulimie du pouvoir mais c'est un très bon administrateur parce que moom la xam moom la jàng ci loolu la dund ba fi mu nekk nii moo tax ñu war a jël ñu mel noonu yéen ñii war a voté ci maa ngi leen di ñaan di leen ñaxtu que ça soit mu nekk Looya que ça soit mu nekk Amath Ba que ça soit mu nekk président bi wala keneen seen kart soo leen di jël na ngeen jël ko xam ni wóolu ngeen ko déglu leen discours yi bu baax ak xel ngeen xool aussi tamit jëfin yi ak li nit ñi jot a jëf ci àddina pour ñëw ne dama leen di yilif suma benn mag suma benn xarit ku ma bugg sax waaye xam naa ne léegi xëj na am na bët bu may xoole wala mu bañ ma mais yal na ko yàlla jéggal muy El Hadj Amadou Wade bu Mbour très fin intellectuel xale bu sharp en matière de décision parce que dama and ak mom ñuy xex ci nawetaan yi moi je suis un produit des nawetaan ki nek tay ministre de la jeunesse et des sports top nañ niveau régional seqandoo ko man ñom Blain, bu Thiès ñooñu daal liggéeyal dans les nawetaan bon xam ngeen ne je suis un produit des nawetaan man j'ai été le vice-président

boo xam ne nit dafay jànge dara moo tax ministre de la jeunesse bi tey suy doxal ba fi mu toll nii muy doxal nit ñi xoolaguñ ba léegi muy doxal c'est parce que il était dans le milieu loolu choix bu baaxoon la mais bref choix yu Ndour na ngeen ma déglu la vocation est un droit en matière de journalisme ngeen xoolaat lama ma ca waxoon bi mu amee ba léegi tey moom moo am y ministre au Sénégal yoo xam ne suma leen di déglu ñuy wax damay feebar je deviens malade et sidéré kérok rek maa ngi ciy déglu benn ministre bugguma wax turam ndaxte dafa am yu xaw a takku yu ci am suma diggante ak moom ba tey su ma ko waxoon xëj na kenn ku muy liggéeyal dina am ay yëg-yëg yu ko te yàlla bu mu am benn yëg-yëg wala ñagas-ñagas bu jóge ci man moo tax ma noppi mais au passage dama ko déglu keroog mais j'étais sidéré su may mbokk may mbokk yi may déglu seen carte ni ngeen ko jël ngeen jox ko ki ko yelloo na basé ci ngeen xool ko El Hadj Amadou Wade bi ma fi waxee daaw jéeg ne mais El Hadj na génn wax ñu lan la mos a géré ngeen déglu ay mbokkam tamit ñu wax leen moom mooy kan ngeen doog ko jox seen wóolite foogoon na ne dama koy contre man contre ma ko regardez ce qui se passe à Mbour Cheikh Issa Sall Saliou Samb Saliou mon école président conseil d'administration, administration conseil euh, régional léegi mu bëgg ñëwaat pour nekk le maire de la cité président de ne ko déedéet Sall kii Samb qui euh, keneen ki kii def am dem mon Badu Sall bi moom jël pour nekk maire bi dëkk bi. Macky Sall xaw ma dafay tux yàmba xaw ma Macky Sall dafa yeb nit ñi xaw ma Macky Sall dafa foog ne ëllëg ki sibir yàlla du toog ak moom laaj ko lan la pour les affaires courantes d'une cité ña nekk ci gox ba dëkk ci gox ba am sañ-sañu lu ñuy dogal ñu dogal ko ci dox ba ñooñ ñoo mun a jël yilif ki leen doy Mais un président de la République n'a aucun pouvoir au monde. pour ne xool mala wala moma dangma wala dangama ne neex pas ma jël la dila la fal wala yow kat dama àndoon ak yow non c'est erroné les gens doivent partir à chance égale Ndiaye si dañuy xëccio parti bi nañ leen jox micro sëggante leen xool liñ musa yilif lan lañ ci def ci lu bon am ab ab sàcc kenn du ko jël di ko dénk ab sàq ndax bu dara desul lu dul jiwaat soo fa ñëwee benn saaku doo ko fa fekk ndax baadoo loolu booy maa leen di fàttali de yilif neex na trop moo tax man may ñaan yàlla yàlla bu ma bokk ci benn nguuru jamono jii ñu nekk man nguur gi ma nekk muy nguuru Cheikh na Cheikh Tijani bi ak bu Baye Niass bi doy na ma te yàlla naa dee ci nguur googu duma politique ba bamay dé amna ci sañ-sañ kuko ko nak nang ko def way kuko def nang ci bàyyi xel yàlla suy wax ken musta dégg mu ne la ya ayuhal majnun yen dofi yàlla dalaan ya ayuhal nas ya ayuhal kafirun yen ñi ragal yàlla yen nit ñi ma ngi wax ak yen ittaqullah ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin waxid mu wax ko ci ay yu beuri am importance ba biñuy takki sëy wax na ko ci yàlla momu ñëw ne bismillahir rahmanir rahim qul la ilaha malikal mulk tuuti al mulka man tasha wa tanzilul al mulka man tasha wa tuzilul man tasha wa tuzilul man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir yana alal mako mom nguur mako mom ci loxo ku ko neex la koy tek ala kulli hal ken munu ci dara buma ne nee Macky Sall mii moo leen di yili fukki at ak ñaar fanweeri at ak ñaar moo leen di yilif te kenn mënu ci dara su àddina bi yëpp taxawoon di ko faagaagal te man ànduma ci faagaagal googu màkki du faagaagu bon nag yàlla moom moom mooy defar mooy dindi bàyyi lan xel ku ko ci yàlla dénk nga nekk maire wala nga nekk président conseil d'administration wala nga nekk directeur de l'équipement au Sénégal ñom la gëna yërem Sénégal parce que le yi gëna a mag ci Sénégal ñom la moy dredage ñoo ci bi parce que dama leen di wax ci te tay suma fi exemple nit ko ce sont les plus grands voleurs au Sénégal yalla na leen yalla yërem ak douane yi nangam am un million mais si vous état bi la un million fuñ la deux millions cinq cent

Regardez au temps du PS, les bourses qu'on donnait aux fils de ministres ak affaire yooyu dara nekkul ci lettkat dara taxi ci dawalkatu taxi wala livrekatu pizza ay métier là comme métier yu mun a am ci Adina, ce sont des métiers très nobles te connais nekk jaar na ci am ñoo xam ne jaar nañ ci ba tey ay manager lañ fi nekk amul doomu kenn ku ci tekki wala tey koo xam ne Sénégal moo fa tekki ba yilifaate mën nga xam ne sàcc amul njëriñ boobu doomu baadoola yi ñu nga université saint louis ñu nga université dakar ñoom ñu jox leen ay bus ñu dem ay roi dem fenn lan lañ mujjee lii yeneen doomu baadoola yi ñëw di def doomu baadoola yi sax xattaa ñoo leen di yilif wala ñoom ñëpp dañuy drogé wu gis nga àddina bu la nit dénkee lang cey feyeku feyeku mbaax du nga yore 400 litres essence sa mbokk ñëw set si la nga jox ko ci 10 litres wala 20 litres wala 40 litres sàcc la nga yore dara ci administration nit la fa nga gérer ko mu dix millions la dama la ko may rek ah man de ma ma papa guerre la na ngeen dem bu li di def ci la promotion des canapés te canapés sa biir nek yore sa chambre hôtel sa appartement Dakar xale bu jigéen bu ñëw bëggu marché nga jox ko rendez-vous jox ko benn appartement di ko jox ko benn marché wala sa benn xarit wala sa benn goro nga jox ko marché jox marché fictif mu ci am di la delloo yooyu yëpp la te boo dee di nga ko layoo ak yàlla ans 50 ans muy fu ma toll nii commencé soxlaatuloo lu dul benn appartement benn néeg parce que dëkkatuloo ak benn doom man amul am naa juróomi doom alhamdulilahi rabil alamin ay amul kenn ku ma ci dëkkal ñi ñu nga université di jàng kenn ki docteur la maa ngi koy gërëm au passage di ko félicité démb la doog a sécuriser deuxième doctorat yam en santé publique Fatimatu Zahra muy suma doom yal na yàlla defal ko ndam baayam a ngi toog di ko gërëm te ngërmande bàyyi ku ko am daa dëkkuloo ci ak kenn nga am five bedroom am sa xaj takk ko ci bintu kër gi mu ñëw am sa gardien am sa chauffeur boo lekkee doo rees suñ tegee ñam yëpp comme man ñemewoo cee lekk ba suur ndax dangaa am jabet suukar si nit ñi di suukaroo ñemewoo ko suukaroo parce que da nga am jabet bala ngaa tëdd lekk il faut nga pikiru parce que da nga am jabet yalla mën te mo mëna la lottub jam te ya nga yoré ay million te million yépp dang ko sacc yalla denk la ben jabar bi nek en très bonne santé deuguer bu la yalla maye nga daje ci ku gëm yalla ku fegu ëllëg ki sax bu dara di ñak di am sax dina la mëna sutural suturaal la sa njaboot way nga am ci soxna su doy waar ko xamne bi ngeen nekké sax di dund bu gisé Mamadou ndjay and ak mom bu gisee Samba ndjay and ak ñoom moom tey lal sërëm bi jox ko keneen amul dara lu mu ko wàññi ci àddinaam ci dundam nga toog di dund ci loolu ba dee nga bàyyee ko ak alal jooju nga tuddi ci biir bàmmeel war a jéggi siraat benn dërëm bu nekk boo xam ne tey tar Ndiaye nga tëdd ci kër ga di xalam lu ba neex fajar mu ñëw def li mu war def ba fajar bu julli jotee sax du julli ji say doom kenn jàngalu leen say doom kenn yilifu leen seen ndey da leen a ragal ndax mattaar mi nekkal dëkk ak moom te sëyul ak moom wala bu sëyee ak moom sax alal ja muy jël di ko jox mattaara ñu toog ci bakkanam di ko xëcc te ci dara di ci bàmmeel di ko layoo te lu ko waraloon sàccum àddina ak ay responsabilité yi nga jox nga sàcc am naa kër noor Foire am naa kër Mbour am na kër Sindia

ki fa doon maye teer yi duma ko tudd sax ku dee nañ ko yërëm rek te bàyyi ko <laughs> waaye suuf sa sa bàyyi moomu ko sa ndey moomu ko de nga jël sa ay décamètre rek di xotti ku la neex nga jox ko pour clientélisme politique amul dara lum lay jëriñ ci àddina suma mbokk yi may déglu suma ay mbok ci diine nañ leen respectante respecter li nga xamee ne moo am ci Sénégal Barthélemy politicien la ku xarañ la waaye yoon daf la dab da nga rey nit mais war nañu jël ñu àtte la waaye buñ la àttee du caageen ni dañ la bañ waaye dañ war tamit xam ne ñi dee ñoo ñi deele ñoom aussi tam am nañ leen lu leen naqari waaye lislaam àtte na ba àtte die nañ waxtaan su fekkoon ne sax lu ñuy ndàmpe beneen famille bi wala ñu tëj la ko ñu tëj la ko ñu tëj la ko mais tu ne peux pas prendre la nation sénégalaise en otage est-ce que kooku war nga bokk ci ñi ñuy fal ëllëg mais loolu du man maa koy décider c'est au peuple sénégalais d'en décider nga xool ngeen seet bi ko xool ko xool responsabilité yi ngeen ko ci dénk ex def na ci lim ci waroon a def yépp Ousmane Sonko a été rattrapé par l'histoire the wrong person at the wrong place at the wrong time with the wrong mobile nattu dal na la ci àddina ba nga nekk politicien dem ci benn milieu bu salté comme bi nga demoon def fa li ngay def ay doomi aadama dee nañ ci ci mbedd mi te ba léegi ñemewuloo taxaw face à la nation sénégalaise nga ne leen damay jéggalu loolu rek a ma metti moo siif ak siiful Mouhamed Souleymane Boub su toogee tey ci rajo naan Ousmane Sonko dafa siif jigéen wala dafa defen danga wallahi alazim maa ngay gas sama bàmmeel ca safara ndax du dëgg parce que xaw ma ci dara atte boobu yàlla rek a xam Seydina Omar dafa ne woon ku koy atte ci yii condition la ak yenn condition te condition yi léegi caméra rek ko am kon nag moo xam allahu alam digganteem la at yàlla mais nañ respecter peuple sénégalais bi bu leen jël en otage na nga am sañ-sañu ñëw ne leen hey man den ndogal def ma dal fuñ ma doon séentoo ak ci luñ ma doon séentoo defuma ko dama bugg ngeen bal ma àq et on tourne une page dans l'histoire pour dem ci gis nga dëkk bii tey kenn mënu fee seedeel nit lu ko yàlla munta seedeel di nga ko xool ci sëy bunt bu xat la ñaari aji sëy yi tey boo leen doon laaj dina ci am ku ci mandu seedeel nit ki lu mu ko seedeel keneen ki waaye keneen ka lu mu wax dafa kàcc ndax mer ak uxda moo ko téye ci xolam ba tax na soo buggee diggante ak nit yépp la nga def sa diggante ak moom la ngeen seq nga juge ko ci ndax mës naa musula nga xool sa diggante ak moom nit ki nan la ko yàlla dimbalee ba mu ànd ak kàntanu mandute pour doxalante ak yow sumay mbokk sumay mbokk yi may déglu man dama bëgg a ubbi une page technique bi may def te bëgguma di ci sori ci li may wax bëgguma di ci dépasser quarante cinq minutes ndax respecter nit ñi ak seen temps bi ñuy toog di ma déglu man tey bu ma toppoon jabar wala doom du ma waxati ci rajo du ma amati émission parce que saa yu ma waxee ñu mer fi mu nekk ni daanaka sumay pare ñu ooma sëfal ma waroo woon a wax nangam wala wax nangam. waaye loolu yëpp ci seen facilité de comprendre ci la bokk li tax ma koy def dafa am benn wàlliw yàlla bu musa nekk ci benn gox ba mu nekkee ci gox ba alkande yàlla di dëkk malayka yi oo yàlla ne ko stop ne ko yoo on na yow yàlla fii de am na benn wàlliw boo xam ne mu ngay toog rek di jàng alxuraan julli ak jàpp ak kii li nit ñi doon def def ñun ndax dañ ko ciy boole mu ne leen njëkkee leen ci moom naousubillah lu tax ñu njëkkee ci moom parce que yàlla nee na xam-xamam ak tegginam waroon na jël mu servir l'humanité li mu war a wax mu wax ko ci dëgg moo tax yàlla nee na boo leen gisee dara boo leen ko munta xeex ak seen alal ngeen xeex ko ak seen làmmiñ boo mun ta xeex ak seen làmmiñ ngeen xeex ko ak seen ay bët so ko mënul ngay xoos sa nopp sax ci tali bi pour def ko pour faj ko soo ko mënul nga jël sa plume di bind di xaatim waaye ñun yàlla may nañ ñu am làmmiñ am nañ plume te moom lañ jàng nekkoon ci nag ko xarañ Pierre Goudiaby Atépa ba immeuble bi daanaw Banjul laaj ko lam ñëwoon ak la ma doon jéem a ger su dul woon loolu tey Dakar kenn du ma fa dàqale kër Fann Résidence billahi azim une enveloppe pleine d'argent ak këyitu kër bu taxaw moom lañ ma tegaloon ma xëpp ci ndox su ma neexee tey brique sax ma bañ ko am Sénégal waaye maa ngi sant yàlla su may mbokk su may mbokk yi may déglu dañuy dem ci li ñuy ooye des élections te ci laa leen bëggoon a préparer pour ñaan leen ngir yàlla na ngeen ci ànd ak dal ànd ci ak tey suffrage universel lañ koy ooye wala suffrage partagé wala lu mu munti doon waaye élection na nit ki jël jomam ak faydaam ak kartam set fam ko mun a dugal mu jox ko kim ko koy war a jox damay rabe si waat parce que man toujours gox bi ma dëkk dama koy bugg mbuur tey li fa xew daf ma naqari trop te ñu ngi doon yàlla ñaan yàlla yàlla may ñu luñ ci mun a saafaraal ñu dem ci waa mbuur bu leen nekk ay dof que le président de la république ne vous impose absolument rien parce que c'est pas droit nañ bàyyi nit ñu dem à chance égale les affaires courantes de la cité ñi dëkk ci cité ba ñoo ko war a doxal mu formé ay kuréel formé njaboot yàlla bi muy wax ci alquran dafa ne yaa ayyuhal lazina amanu itaqu rabbakum allazi ko min nafsin waxida ñu ne ko lu tax mu ne leen man maa bind góor bind jigéen te ma bugg jigéen ñi góor ñi nekk seen càmmeñ ñu jël ci jur ci ay njaboot njaboot yooyu nekk ay famille famille yooyu ay nekk ay nation bam nekk état moo tax góor jigéen yàlla dàq ko man fi may liggéey su ma taxawoon di ko fa wax wala ñu dégg ma tey nañ ma dàq I don't care je m'en fiche contre naa ko affaire yi pervers la fu leen neex nañ ko teg ba fu may liggéey su leen neexee ñu tegal la fa I don't give a damn ndax man li ma bañ dama koy bañ ba ba may dee te ci l'islam bi ma bokk ci laa koy tege sumay mbokk sumay mbokk yi may déglu ca alxames bii di ñëw jox naa leen rendez-vous man avec ou sans invité je peux faire mon émission librement am na ñu ma invité ñu bari waaye ku ci tàllal sama loxo pour ma waxtaan ak yow dinaa taxaw ak yow ci plateau bi ñu jàkkante échanger si ay idée ci njëkk ak ci teraanga man bokkuma ci journaliste yi invité nit pour di leen toroxal mukk ci addina loolu du journalisme man dama lay tagaral yëkkati la ci sa maqaama ànd ak yow laaj la nga may tont ma lay laaj ñu dem ci mayetik ba li ma war a génne c'est au peuple c'est à la nation d'en décider maa ngi leen di gërëm di sant seen mbokk Mouhamed Souleymane bu bu fekkee ne dama wax dara rek lu dënk waaye yàlla suma borom yow yàlla nga ma jéggal waaye sama làmmiñ pour wax ci pour jëriñ askan bi njëriñ loolu yàlla na ànd si ñoom xarit suma naatangoo ki nga xam moom mooy njawar Diop parce que nit su fekkee ne lëg su lekkee alam na ko gërëme coy tey fam toog moom mooma téye ci régie technique am di ma teg en direct ak suma face Facebook may wax ak nit ñi ñu may dégg te ndéglu boobu yéen la jëriñ wasalaam ba alxames incha allah je vous donne rendez-vous ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew ah, ah ah lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew